teewaay démb opposition bi ci concertation nationale bi amoon jam ñaar bi ci pétrole beeg gaz bi ndax dee bëgg a wane ni dialogue gi ngeen tàmbali fas fas yéene fas yéene ngeen maanaam bañ cee participer <laughs> man de dafa dafa dafa mel ni xam nga teg tànkam ndax oote nga nga ci dialogue bi lépp loo xam ne ñu ngi jëm ci pétrole yi ak ëllëgu pétrole coow bi jóg nag nga ne xaaral ma gën a ma ma ma ma ootewaat yeneen concentration. taxawaat taxawaat bi yëpp nag. ban jàngat nga am ci concertation jàpp nga ni y' a pas lieu. ma ci dégg li nga ci dégg. li ma ci jot a dégg daal mooy. li ko ñor mooy lu ñu fàtte dégg wax wax la ko ñor mooy ëllëg ñëw nar a neex kaay la ñu non mais nañu dellu na dellu bi nga xam ne jot jot na ko làq bu fekkee ne moo ko làq wala rakkam làq ko wala lu am di ceeg ñeneen loolu danañ ko jëkk dellu ñetteel bi mu ne loolu ndax man dama bëgg jàmm dama bëgg jàmm Sénégal ndax dëkk yi euh, malédiction du pétrole euh, ay dëkk yu fekkee ne pétrole am na foofu ay bu jógee ci pétrole mi ngi am ci réew boo xam ne jiitu réew ba jël na pétrole ba àgg moom loolu am waaye bu fekkee ne lépp teg na ci yoon askan bi xam ne lii nga xam ne moo ko moom des na ci loxoom mm-hmm. ba